Assalamualaikum Senegal, assalamualaikum Aduna, man gue karven kaya, le 15 quinze mois 95 daal Malika tey ñu ñëw fii ci Thiès damay wax ne Thiès benn dëkk chess gaar Thiès dëkk bu neex Thiès vraiment ñu ñëw ngay ah sama probi bi en ah, Vito nasional, l'international teraa ngay na tey nag ñu ngi nii ñëw ak kan Bas Thiong borom Bas da ko yëngal waay Bas da ko yëngal tey Bas war a bàyyi ñëw yëngal Thiès dama ne avec Africa rek ànd sama cameraman Aziz tay ñu Fiji, smart, ci Sam Surprise tey war a ànd ak kan Bassirou ak waa Subatel non du yomb gars yi topp leen ñu xool fii lay xewee Bamos. tey ki ñu taxawal kenn ko présenté Fadel borom Fadel ñamax ñamaxi git git git kiis waaw mu ngi nii tey Fadel lu waral sa teewaay fii. waa sama teewaay fii nag moom li ko waral daa bari ndax ku ne xam ne ni Bassirou tey moo woote fii Thiès te ku ne xam ne ni bas ak Fadel euh, euh, saabu la saabu bu ñu xëbal ndax man ak Bassirou ku ne xam ne ni Bass. bas daal xaw ma nan laa ko mën a woowee maag moom da nekkatul ay fecckat ak woykat ay magar raq lañ danoo dem ba maag moom ay jum jumeau lañ daal ay jumeau ndax foo gis bas di nga fa gis fa de waaw tey sama teewaay fii looloo ma waral ma ñëw fii tey ku gis yi xam ne tey jii Thiès Thiès dañ ko nar a def dóom mais mais lan la mais lii lan la tey non gisagoo dara bi si kanamee tuuti fii laa la ko waatale barke maam Cheikh Fall ne am ñu dugul mais mais mais mais mais lii lan la nii tey programme bi ni parce que man dama ni nii mais woykat bi naka da waa Ndakaaru xamuñu ko de. non gis nga de. mais heures ba tey dafa fees dell. waaw gis nga de te kana si kanamee ne nee naa la dina am ñu dugub. mais Fadel am na lu la gars yi xamee woon. waaw Fadel ñamax ñamax yi. waaw gis gis gis. non tey yi ñu xaar mais directeur nuyu naa la. waaw bëgg naa la bu wér waay. lu waral sa teewaay tey. waaw sama teewaay liggéey rek ah. parce que gars yi xam nañ ni léegi sa Best Production dafa collaboré ak Subatel léegi nekk Subatel musique te Bass bokk ci artistes yi signé Subatel si suñu labeel donc man ma nekk directeur artistique am nekk directeur artistique labeel label bi yëpp donc yoon la ñu teew def suñu liggéey waaw. mais mais temps yi coow li ci musique bi. coow li lan la. mais xale yi ñoom màgg wala coow li lan la. waaw mais coow nga coow moom fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi showbiz la coow fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi ñun daal ñu ngi liggéey ñu ngi suñu yoon xam nga di job mais coow daal fi lañ koy fekk fi lañ koy bàyyi. mu ñàkk showbiz tey programme bu xam ne macha allah moo xoolal coow li xoolal xale yi. Mhm. dell mais tey lan moo waral lii maanaam liggéey ban liggéey ngeen liggéey. waaw liggéey bon liggéey bi méttiwul ah. liggéey bi gënoon métti mooy mooy mooy promotion artiste bi mooy def ko defar ko son kilibal ko sénégalais bëgg ko loolu moo gënoon métti te loolu lañ réussir donc boo bëggee teg lii rek du métti defuñu si effort bu bëri ah. c'est très sincèrement liggéeyu artiste bi moom moo feeñ fii rek li mu liggéey moo tax xam nga ñëw buy su parce que c'est pas donné à n'importe qui ñëw di tëgg fii nii muy mel nii quoi c'est parce que liggéeyu artiste bi la quoi waaw ah ñu ngi fii Thiès benn dëkk ñaari gaar Africa rek moom xam nga moom day déplacé wu dem fu ne ci àdduna ah, ñu ñu fekk si sama frère sama xarit sama doom nday muy Bass Thioung hmm, mu war a joué fii nii Sams Prestige Bass ñu ngi lay nuyu waaw Baye maa ngi lay fay maa ngi lay siyaar yëpp di di la bëggee a baax di nuyu waa Africa rek. mais bas lan nga defal waa Sénégal euh, euh, depuis vingt deux heures ou bien mu def guichet fermé salle bi ci biir fees ba ñu arrêté jaay ticket et tout bas lan ngay wax ci loolu waa Sénégal. mais loolu yëpp dama koy sante sama yaay ndax man lu ma am sama liggéeyu nday la li mu am sama ñaanu waajur la di ko ñaanal fi mu nekk yàlla na ko fi mu jugee tout le temps rek man mooy sama sëriñ di ñaanal encore une fois loolu lépp loolu la waaw. lan ngay faral waa Thiès lan ngay faral waa Thiès tey tey parce que tey amuñu temps tey yorul yomb. non waxtu du bëri nee naa leen making ambiance kooku bañ woo ambulance ndax sama son la ñuy danse def bu tendance tendance bi tey ci biir la. mais loolu bari de waa Africa rek nañ dem dugg ci biir yëngal ko bu mu yëngu. rek tey moo xew la ak Bastung ambiance bi tey moom fii tey day noy guy gi 95 moo na mi Aziz moo na mi noo ngi fees jël jël jël jël vraiment affaire bi doy na waar. eh waaw non maa ngi ñëw léegi. Oh, damay yegg. <laughs> ngi nii rek. naka waar. sant bu wul kenn. a wax ko wax ko lu neex tey moom lu neex rek dama tax a jug parce eh, parce que xaar ma maa ngi ñëw.